donc monsieur le maire Maguette bu Ngaye Mékhé pour la deuxième fois nga ñëwaat ci plateau bi. et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve et que je viens à cette TV pour servir aux téléspectateurs et tous euh, mu nekk kon ci euh, Alliance pour la République. Euh, la chute du régime ou le quel dernier régime Vous euh, avez été là il n'y a pas longtemps, bon, disons 3 ou 4 mois en arrière, ou 5 oui, mois. Oui, j'ai soutenu le candidat à euh, J'ai vu que les pratiques, et euh, les discordances au sein de, de notre mouvement, que j'appelais pas peut-être un grand parti, euh, je ne suis pas allé, j'ai toujours été libre d'ailleurs dans, dans, dans l'Alliance la, pour la. Et vous êtes vous êtes investi durant cette campagne électorale ah, Je me suis beaucoup investi sur de, de, de euh, J'ai cru en son programme. Moi, je soutiens les programmes et vous sentiez plus dans l'Alliance pour la République Oui, parce que les dernières pratiques euh, de, des dernières élections ne pas convaincu en tant qu'intellectuel libre euh, qu'il y a une cohésion ne sont pas dans ce qu'il n'a pas de cohésion. Le parti n'est pas structuré. Il n'y a pas eu une ligne de mire, il n'y a pas eu une cohésion dans l'action, il n'y a eu beaucoup de discordances et, et vous êtes tué depuis tout ce la suite pour avouer. pratique qui a amené ah, les élections et la fin, c'est ces euh, qui ne me conviennent pas. Je jamais été véritablement dans les réunions, dans le parti. mais je me suis reconnu sur euh, le PSE. Moi, j'ai milité à l'APR à cause du PSE, parce que quand on lançait le PSE à Paris, j'étais là. en tant que fonctionnaire de la Banque africaine de développement, et j'ai vu que c'était un bon problème. Mais vous vous, et, et, vous, vous sentez bien dans le Benno Bokyakar Oui, le Benno Bokyakar, c'est une très grande coalition. Et vous ne comptez pas quitter le navire Je ne pense pas. Euh, je, ne, je, je, je, ne dis pas que le programme du PASTEF. ah oui. kon euh, bàyyi ma wax ak sabar américain yi nee nañu souvent top file so much better than the bottom. vous comprenez ce que cela dire. top file so much better than the bottom. lorsqu'on au fond vraiment on souhaite aller au sommet euh, et voilà lorsqu'on retombe au fond euh, dans le fond donc ça ça risque d'être très très vous avez connu l'opposition maintenant vous êtes au pouvoir donc c'est euh, ki ñuy dalal mooy euh, Doudou euh, Ibrahima Dramé mooy coordon coordonnateur PASTEF États-Unis États-Unis bi yëpp yaa koy coordonné wala benn benn west wala east side wala nan la coordination bi di demee. États-Unis comme fédération la. Ouais. donc mi ngi dépendre implantation. mais on a ensemble en, en, en tout section bu nekk nag dafa am coordonnateur local man maay coordonné section yëpp voilà continuer dans si si pré mën nga continuer présentation voilà yéen coordonné manier euh, yaatu na mais parfois quand on dit états on a tendance à penser que cinquante états yëpp la mais dafa am zone yoo xam ne Sénégal dafa am ok mën na mën na nekk bañ kii rek xam nga concentration concentration humaine yi immigration bi d'habitude ñiy dem dañuy fekk ay pionniers foofu s'il n'y a personne les gens sont un peu réticents pour y aller mais la la distribution New York moo ëpp nit et la zone sud et eh, côté West Coast bon alhamdulilah ça s'est très bien passé et eh, on n'a pas été choqué par ce ce qui s'est passé parce que depuis man bi ma duggee passé ba léegi ñun ñoo doon gagné États-Unis voilà donc par contre ce qui s'est passé mooy zone yi nga xam ne dañ doon perdre euh, élection législative yee passé boobu fekkoon nañu parce que j'étais au Sénégal euh, différence bi dafa gën a xat y'a Brooklyn boo xam ne ci biir New York foofu parti au pouvoir moo doon gagné bon les élections législatives passées deux voix la ñu ëpp te li taxoon mu am c'était la confusion entre wallu ak yeewi voilà mais élection yi passé y a deux bureaux là-bas euh, Amadou Ba a eu un avantage de deux ou quatre per quatre voix mais deuxième bureau bi dem nañ ba dépassé ba complet donc euh, y a une euh, euh, le résultat n'a pas trahi les tendances du passé donc euh, ça va quoi politique yoo def ko waaw def euh, ko waaw en fait au vacarme des mots nous préférons le courage de l'action voilà nous c'est l'action d'accord def ko mën nañu wax jëf mais jëf c'est vague mais def ko on interpelle les gens directement tout le monde se sent concerné wala tax ñu tuddee ko def ko voilà parce que Sénégal ak dëkk yu bëri aussi du Sénégal rek wax bi dina bëri théorie dina bëri mais à un moment donné il faut que les gens euh, euh la main à la euh, donc man maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu tamit euh, ñi ma nekkal ci plateau bi ah Maguette je peux l'appeler par son prénom Ibrahima mais également euh, suma grand Albert Sy su ma nee sama grand parce que du du ñëpp lay tàmm di wax grand mais parce que moom vraiment sama grand la parce que euh, bi may liggéey journaliste euh, Mamadou Koumé euh, boole ma ak Pape Samba Kane pour au matin journal le matin moom laa fa fekk mais fekk na man xamoon naa ko avant parce que bu doon ànd ak suma yeneen grand ñoom Omar Sarr ancien ministre ak Abdou Salam Sarr donc mais bi ma ñëwee daf ma dalal xam nga ne ma yow fii maa fii sa mentor non bientôt bientôt voilà. parce que waaw voilà donc euh, mais vraiment euh, voilà di ma jàppale di ma teete di ma protéger ba noonu laa jugee euh, matin dem M7 avec Pape Samba et après jugee noonu dem France voilà donc boobu ba léegi maa ngi koy soog a gisaat moo tax je tenais à à le remercier et puis rendre ko hommage parce qu'il est vraiment très généreux. je veux juste rajouter que je fais partie de la coalition Diomaye Président parce que j'étais candidat bien sûr j'étais candidat déclaré voilà et puis j'ai pas pu euh, passer l'étape du parrainage ci la rejoindre la coalition Diomaye Président non déposé wu ma c'est juste à ah, non non non jotuma dajale voilà oui parce que ni ma ko doon dajalee ak ni koy dajalee bokkul man dama buggoon dajale parce que boo xoolee même am na ñu dajale dem ba élection ak du ñu am fa wute ça veut que ni ñu ko dajale baaxul voilà bien que euh, le, le le parrainage n'est pas une promesse de vote ah on est d'accord mais au moins boo amee 44 231 war nga mun dese sax 10 euh, 000 wala 15 000 cetera tu vois man dama doon dem ci nit yi benn par benn tu vois di dajale mais nit ñi dañ ma doon proposer ma jënd ma ne du ma jënd j'achète pas. jënd parrainage on l'a proposé on me l'a proposé je vous dis je pèse non en fait dafa am ñoo xam ne dañu dajale parrainage ba pare non non ci parti politique lañ bokk. du ma tudd parti mais dañ ko dajale ba pare wan ko seen leader ba mu gis ko mais soxlawu ko parce que boo xoolee am na ñu bëri dañu jël parrainage kii député yi wala ñu jël leneen ci wax wala ñu am ba doyal. donc ñooñu dañ koy jëlaat après dem dugalaat ko circuit bi jaay ko ñu bëree bëri boo ñëwee conseil constitutionnel nag da ngay am ay doublon moi quand j'ai vu ça li ma gis ci parrainage bi xaw naa bàyyi sax ci yoon bi quoi tu parce que c'était c'était très sale des pratiques sales te man loolu taxul ma dugg politique dama dugg politique pour mën a contribuer pour Sénégal jëm kanam pratique de corruption yooyu yëpp mu jóge fi voilà donc euh, mais politique bi nu mu doxee moom parrainage bi c'était pas voilà donc après bu mu duggee ci coalition bi liggéey et puis je partie du directoire de campagne j'étais conseiller spécial du directeur de campagne voilà et puis euh, gagné voilà ça touchait tous les thèmes, toutes les problématiques. Euh, C'était tellement général et vague. Mais là, un jeune président qui arrive, bon, premier discours structuré. 15 minutes pour Voilà, un, un, discours très politique. Donc c'est un discours qui fonde euh, son état d'esprit. C'est quelqu'un qui est structuré. Euh, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est euh, vraiment, il a construit tout autour de la cohésion nationale. c'est vraiment la colonne vertébrale. Et ça, c'est un exercice extrêmement difficile. Qu'il qu ait réussi, moi j'ai été très très très surpris. Premier coup, tu fais un discours politique, tout est organisé autour d'un thème central, la cohésion nationale. Euh, c'est une performance pour un premier coup, coup d'essai. Vraiment, il a réussi le discours politique. Maintenant, le, le, le programme aussi, il a décliné. Vraiment, c'est un programme qui est, qui est cohérent dans, dans, sa, dans sa démarche. Contrairement à l'Union Noire de sa première sortie médiatique après son élection, que c'est euh, des aventuriers, qu'ils ne connaissent pas. Bon, les gens se sont trompés, ils, vont se tromper parce qu'ils sortent de l'ENAM. Bon, mon la plus grande, l'unique école d'administration nga liggéey dix ans quinze ans dans un ministère des finances on te dit que tu connais pas l'État tu es un produit de l'État donc il a prouvé en deux ou trois sorties que moom il est serein et euh, il écoute ce discours-là c'est parce qu'il a écouté quand même des des techniciens il a écouté ses collaborateurs pour réussir ça en quinze minutes bah y en a qui ont fait dix ans quinze ans mais mënuñu maîtriser discours politique donc ça veut dire que ku nangu jàng la et ça c'est euh, la capacité d'écoute bi mu def ba mën a am en dix minutes son programme décliné je pense que quand il faut euh, s'attendre à un autre Diomaye il va se révéler aux Sénégalais c'est-à-dire que bon xam na fu mu jëm xam na naka lay demee Euh, et ça, je pense que pour moi, c'est un discours euh, très, très, très rassurant pour, euh, pour quelqu'un qui, qui, qui, démarre. Bon, maintenant, il y a, c'est vrai que pour man il faut qu'il reste dans ces référentiels-là. Le premier discours-là, tu as décliné, tu as pris des engagements, fille à peut-être deux ans, deux ans et demi, que tout tourne autour de ce, ce discours-là. C'est le discours fondateur d'un chef d'État. il faut pas qu'il se laisse divertir par je ne sais pas quoi mais il a une orientation il a une ligne qui reste dans ce cadre là et même euh, par exemple là pour brancher sur l'actualité le gouvernement il faut caler le gouvernement sur ce discours politique la tout ce qu'il va faire comme action sauf peut-être ce qui est imprévisible loolu mënoo ci dara mais li nga xam ne lii wax nga ko nit ñi dégloo na gëm la ne la yaa ngi ci yoon bu baax bi nga teg sa gouvernement gouvernement bi tegu ci yoon boobu bi nga xal doo jàdd maintenant li nga xam ne bon euh, sóoraale ko mën na ñëw c'est c'est la vie qui est comme ça les les son euh, sont faites pour s'adapter aux conjonctures mais je pense que pour dire euh, le dernier mot daal il est bien parti il a pris son élan Maintenant, euh, bon, il faut, il faut qu'il continue, euh, euh, il faut écouter. Un chef d'État aussi, quand même, euh, c'est, il faut beaucoup, beaucoup d'écoute, surtout les experts. Euh, je crois que, bon, j'espère quand même qu'il va écouter. Ça dit que si tu écoutes, tu travailles mieux. Mais si tu n'écoutes pas, d'ailleurs, Sénégal, bon, on connaît nos défauts. Ça, ça dit que nit ñi euh, wax wax la xam xamuñu liggéey et ça il faut que moom mu déglu ñi nga xam ne bëgg nañu liggéey bëgg ñu ànd ak moom les critiques moom de manque bon maintenant qu'il écoute ses collaborateurs pour man daal vraiment c'est un discours euh, fondateur qui reste dans son ancrage quadruples mais quadruples donc euh, euh, monsieur le maire yow nan nga nan nga jàngee loolu noonu euh, mu ngi rassembler rassurer apaiser et réconcilier am na yeneen nag mais lii nii on dirait que moo nekkoon l'accent tonique voilà ñu yokk ci aussi construire construction muy muy cinq d'abord euh, féliciter le président Bassirou Diomaye Faye pour sa posture euh, qui est un président qui a montré sa capacité d'adaptation parce que très vite il s'est adapté euh, au contexte du protocole d'État. Ensuite euh, on voit qu'il apprend très vite parce qu'il a une capacité d'écoute. Quand on a une capacité d'écoute, il ne faut pas aussi qu'on vous étouffe. C'est important, doyen. Et il a une capacité d'écoute et il a fait un discours dans la la, la tenue est, euh, est vraiment sans faute. Maintenant, il a été un peu plus long dans le wolof, j'ai chronométré, il a fait 13 minutes 29 secondes en français et 16 minutes 46 secondes en en wolof. Beaucoup divisé muy 15 15. Muy après. Donc euh, il est dans le temps. Donc il est il maintenant euh, ce discours est un discours aussi programme. Parce que moi, j'ai lu leur programme in extenso. Et c'est dommage parce que c'est après les élections qu'on a, qu'on a diffusé largement le programme, je ne sais pas pourquoi, qui n'était pas très loin d'ailleurs du programme de Amadouba dans les. Dans le programme a été diffusé avant. Dans, eu, dans les... eu tardivement, mais le programme... Oui, oui, je l'ai eu tardivement après. Voilà. C'est un, un, un, militant qui me l'a envoyé le dernier voilà. jour. Et il a fait un discours programme. Et comme nous dit le doyen, il faudrait qu'il reste dans ce programme de, de réconcilier d'abord les Sénégalais. Parce que les, ça, il a beaucoup insisté sur ça dans la trame du discours. Réconcilier les Sénégalais. Mais surtout, en tendant la main, la main tendue. Je tends la main à tout le monde. Donc, euh, c'est ça, dans la réconciliation, qu'on peut construire. Et ce qui a le plus frappé dans la réconciliation, c'est le dialogue euh, interreligieux. Ou, ou qui coïncide avec le carême Et, et, et ça, c'est un temps fort de la trame du discours, où, où il fait appel à la diversité, euh, à l'ouverture, et je pense qu'il euh, il mérite le, le, soutien des Sénégalais pour Nyubanko euh, Fakastal. Parce que euh, c'est maintenant à lui d'avoir la capacité de, de, mettre en œuvre euh, cette métendue, donc euh, d'être transcendant, de, de, d'être au-dessus de la mêlée, la jeunesse, qui est le socle de, de son programme. Euh, il faut que les Sénégalais comprennent que c'est à eux de matérialiser le programme, mais pas au président. Et, et ça, c'est très important. Donc euh, cet appel qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a fait, c'est de dire euh, bâtissons ensemble. Et, et, et c'est pourquoi j'ai ajouté la construction. Parce que tout l'objet du discours, c'est la construction d'un Sénégal prospère. Et il revient beaucoup sur ça. Donc je crois qu'il a fait un excellent discours, un discours très politique, un discours programme, un discours d'un chef d'État. Et je pense qu'il a été euh, at the helm euh, d'un discours de, de chef d'État. Voilà ce que je peux, je peux dire euh, de, du discours du 3 avril de, du président, euh, son Excellence Bassirou Diomaye tant que chercheur ban ban ci def. Euh, su ma waree wax dëgg duma ko wax d'accord euh, mais lu ma la mën a wax déjà sur la personne parce que projet boo mënti gis euh, personnalité nit ki koy porter dafa am importance moo tax bi ma bokkee ci coalition bi ñu nekk ci j'appelle ça une phase de résistance mooy bi ñuy Macky Sall di bundu Euh, ñu bëgg suñu élection mënuñu mënuñu marché mu ñu def dara euh, moment boobu euh, ma dem seeti ko prison waxtaan ak moom lu undoon seeti bi mooy dama bëggoon a xam lom musuma ko woon gis parce que bi ma doon ñëw fi fekk na mu ngi woon prison ma ni ko mais dama ñëw seet la parce que man balaa may défendre kenn dama ko bëgg a xam voilà parce que mënu ma nekk ci télé yi ci mbedd mi di wax ci koo xam ne xaw ma ko voilà je pas mentir du ma la inventer benn mythe te du loolu du dëgg bi ma demee nag ba gis ko ba ñu waxtaan ci la cerne personnalité et effectivement c'est quelqu'un qui écoute voilà il fait pas preuve d'autisme politique day déglu ma déglu ba pare ma déglu ko ma nit ma am idée ci ban personne la voilà te premier discours bi aussi wane na ko voilà parce que man lu ma percevoir woon ci moom mooy tamit nitu jàmm quelqu'un qui qui rassemble parce que dañu jóge ci benn phase ñoo ngi koy wax ci Euh, ci science politique stasis c'est-à-dire que c'est une phase de trouble dans les démocraties grecques day am sia grecque mu am ay trouble à l'intérieur des démocraties loolu moo fi amoon euh, su amee nag léegi euh, dañu war a dellu siwaat à la nit yi nekkaat ci jàmm ñu passer d'une démocratie euh, d'agonisme d'agonisme ou agonistique c'est-à-dire d'affrontement à une démocratie d'antagonisme c'est-à-dire de, de délibération, de discussion, d'échange, etc. Voilà, divergence d'idées. Voilà, je pense que moom message am déjà loolu lay njëkk a wane jëm nañ fa euh, beneen bi mooy il a il a vraiment pris la mesure euh, des problèmes institutionnels des problèmes économiques yi am ci dëkk bi fii ba tax na euh, mu mu accès discours am ci loolu institution yi c'est quoi la justice la justice avait un problème on avait un problème avec la justice parce que euh, il y avait des décisions de justice yoo xam ne kenn wu ko euh, système électoral bi aussi wax na ci euh, il y a un problème il faut régler ce problème là et et aussi la prospérité il en a parlé parce que on ne peut pas se satisfaire de la démocratie à se mettre sous la dent démocratie baax na day indi stabilité mais en même temps aussi il faut aller au-delà il faut aller vers une démocratie économique c'est-à-dire l'accès Euh, aux ressources, hein, euh, la lutte contre la pauvreté, hein, parce que même je dirais, on est même parfois dans des situations d'indigence, de pauvreté extrême, et il faut qu'à un moment donné, euh, que le gouvernement, son régime, travaille pour diminuer la, la pauvreté. Et foofu lay daaneele boo seetloo les les les vingt dernières années yi tous les prix Nobel de la de d'économie ah ont travaillé sur ces sujets ces questions sociales moo xam Amartya Sen moo xam Mohamed Younous moo xam Banerjee et Duflo ah euh, ñoom ñëpp ku ci nekk liggéey nga ci loolu te ci nga am euh, prix Nobel parce que ça veut dire que c'est à la mode parce que pauvreté dafa bëri surtout cette zone la ñoom bi ñu nekk euh, en Inde et que Afrique aussi am na fi il faut maintenant démocratie boo ko mënee boo ko bëggee stabiliser il faut nga lutter contre la pauvreté moo indi ce mot prospère voilà un Sénégal meilleur et prospère et j'adhère totalement à cette vision-là. on dirait que les ñi mu tàllal loxo mooy les amis du Sénégal les partenaires les PTT et cetera dafa daal ñoom la gën a waxal que la diaspora alors que joué na ci rôle bu rëy ci Falon. mais discours la et du programme c'était vraiment dans le discours et j'abonde dans le même sens parce que li mu wax nii c'est extrêmement important euh, au-delà même de la forme. Euh, programme bi euh, président Diomaye présenté je am naa ci familiarité parce que liggéey naa ci donc euh, surprendre ma voilà euh, pour ce qui concerne la la diaspora y a beaucoup de thématiques yi nga xam ne abordé nañu ko ci programme bi bon peut-être que on aura l'occasion d'en mais li ma xam ci doo xam ne jot nañ ko am en termes de discussion y a quand même des projets assez structurants yoo xam ne diaspora bi dina ci bokk c'est normal quand un président sortait fait un premier discours euh, dans le contexte actuel fi ñu jógee ak fi ñu toll fi ñu toll tey que président bi mentionné partenaire yi parce que. Euh, pour rassurer. voilà euh, exactement voilà c'est ça parce que ñëpp xam nañ campagne bi mu dérouler avant sax ñu dugg ci élection yi on a eu tendance à présenter le Pastef leaderu Pastef bi comme des gens yi nga xam ne. <laughs> dañoo bëgg rek ñëw bouleverser changer lépp ko voilà donc euh, looloo tax c'est important voilà c'est ça dafa métti loolu on le comprend xam nga rek adverse adversité politique bi parfois dañu koy pousser ba finalement dañuy génn dans le cadre de la de la mais ce qui est important mooy on a pu réaliser la transition et que dañuy vérifier donc ils ont fait la recherche ils se sont rendu compte que en réalité c'était de la politique, quoi. Ils ont compris. Donc que le président revienne et ils disent que nous sommes ouverts aux investisseurs. Euh, nous rassurons partenariat dina am mais que soit clair que partenariat boo xam ne dafa war a nekk <laughs> un partenariat beaucoup plus équilibré par rapport à ce qu'on a jusqu'à là et je pense que partenaires ils seront ouverts à sa parce que pour que partenariat mën a nekk loo xam ne lu durable la si ce n'est pas basé sur la justice mënul nekk te les occidentaux je pense qu'ils l'ont Euh, je ne sais pas ce qu'il en en Europe, mais au niveau des États-Unis, c'est le cas. Parce que moi, j'ai au niveau du Sénat pour ale présenter euh, le problème qui se pose au Sénégal. Euh, xam naa ne war na bon du loolu moo ñu moo ñu fa yóbboon dañu demoon pour pour présenter euh, situation bi pour yëgal leen ne ñoom ñi nga xam photo yi ak film yi. mars 2021 et cetera daf ko ay film daf ko ci ay oto ak ay ay camion di wër mbedd New York yi voilà di wane uh-huh. ah, di bu ak benn message bu voilà voilà mais loolu euh, defu ñu ko pour jéema de parce que lu ñu def dafa nekk loo xam ne am il fallait que nit ñi loolu mooy dëgg bi bu doon sax loo xam ne dañu ko inventer là on peut ay jéebaane mais on a on juste on a juste présenté ce qui s'est passé mais am na benn aspect tamit mooy le le le boulot des activistes aussi dafa mel nii ah. parfois yéen dañ leen di yàqal. Ah. parce que yéen da ngeen di tënku ci parti. Mm-hmm. activistes yi mm-hmm. wala youtubeurs yi souvent bokkuñu ci parti bi. amuñu sax carte parti bi. Mm-hmm. mais seen discours parfois dañuy yaakaar yéen lañuy ñuy defaral alors que yéen lañuy ñuy parce que ay freelancer la quoi. ñoom kenn contrôle lu leen neex wax lu leen neex kërëb bon et puis voilà. non mais c'est clair parti politique dafa difficile pour nga gérer ko mais ce qui est clair mooy quand quelqu'un sort mu ne activiste la mu wax yorul carte parti bi man je vois pas pourquoi même s'il tenu un tient un discours boo xam ne c'est favorable au parti que nous ñu bëgg gëm ne ñun ñoo leen yónni c'est pas le cas le parti a des euh, cadres yi nga xam ne bu ñu communiquer ñoo ñooy communiquer El Malick Ndiaye mooy suñu suñu parce que yàggatul dara nga gis ces mêmes activistes ñooy wëlbatiku di cracher sur le nouveau régime alors ñoo doon su tendre ni dañ ko doon défendre démb ak bërki démb parce que man des fois da gis ku nekk extérieur naan la wéy dégg nga diw li mu wax man la non écoutez man Sénégal laa nekk di dund les du ñu nekk extérieur liggéey ba wàcc toog seen néeg yor seen téléphone connecté wu ñoom ñoo may xamal li ci biir réew mi donc am na discours yoo xamante ni ci ñu ngi koy ñu ngi koy dégg vraiment yéen du sax seen intérêt ngeen di fréquenter ces genre de personnes mais c'est pas c'est pas qu'on les fréquente amoon na moment ce n'était plus un combat de Pastef c'était devenu un combat citoyen donc on peut pas exclure des gens parce que bokkuñu Pastef mais ce que l'on demande voilà ñoom la engage ce que l'on demande c'est que le peuple fasse une ait une capacité de discernement xam ñi nga xam ne c'est des personnes autorisées pour parler au nom du parti ak ñi nga xam ne c'est des gens qui sympathisent avec le parti mais qui ont leur liberté de ton donc distinguo boobu kooku On euh, discutait c'est vrai, euh, il a parfaitement raison que dans le discours, l'aspect diaspora n'est pas revenu assez fort. Est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas un business model bien défini Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, qui, dit ce qu'il peut faire, euh, qui fait ce qu'il dit certainement. Donc peut-être que vous n'avez pas achevé le, de modéliser l'apport de la diaspora ou la politique de la diaspora. L'autre élément sur, euh, dans le discours, c'est l'appel aux investisseurs étrangers, l'investissement direct ou indirect étranger. Et je pense que euh, c'est bien, mais dans le programme, euh, j'ai vu que souvent, euh, que ce soit les régimes précédents, depuis Wade et autres, parce que l'investisseur étranger, il faut aller le trouver sur place avec du pushing pour, pour lui vendre le pays et le rassurer. Et je voudrais euh, évidemment qu'on change un peu de paradigme par rapport aux investissements directs ou étrangers pour que l'on puisse booster ce qu'il a appelé l'industrialisation pour créer des emplois. Parce que l'attente des emplois, c'est très fort. Mais il n'y a que le secteur privé et surtout l'industrie qui peut créer des emplois. Beaucoup de jeunes pensent que l'État va recruter des jeunes, mais l'État n'a pas une capacité et, de recruter 2 millions de jeunes. oui ça c'est très très bien. Mm. Euh, mm. euh, c'est vrai euh, diaspora bi dans les régimes précédents man ce que j'ai remarqué sama propre observation c'est que rapport yi entre diaspora bi ak dëkk bi c'était une autoroute à sens unique l'objectif c'était comment faire en sorte que les gens là xam nga que les gens yore seen xaalis yónni ko dëkk bi supporter ménage yi kooku souvent les gens ont tendance à dire qu'ils n'investissent pas sincèrement mais je dis que kooku c'est pas un jugement qui est qui est euh, assez fair pourquoi parce que entreprise yi nga xam ne ñu ngi ñëw fii ñi capté demande bi ñuy capté demande boobu c'est supporté par l'argent que les gens envoient donc même sans être impliqué directement ñu ngi créer ay emploi fii maintenant on aurait souhaité que seen rôle bi comme lui il le dit mu am donc il faut des politiques bi yi nga xam ne dañuy du ñuy yem ci compter sur le patriotisme mais aussi euh, leur montrer que you can make it good and make it well here ok loolu mooy di nga mën a defar sa dëkk jàppale sa population mais aussi liggéey ci xaalis loolu laa doon discuter tout à l'heure là avant avant avant muy ñëw te j'ai dit que loolu il suffit pas simplement de faire du leveraging sur cette notion de patriotisme mais il faut également qu'il y ait une infrastructure d'engagement il a donné un exemple des pays comme euh, comme le Cap-Vert avec les taxis là man je l'ai du premier état bi nga xam ne ils l'ont expérimenté avec beaucoup de succès c'est l'état d'Israël avec Ben Gurion depuis l'indépendance euh, d'Israël il a lancé ce qu'on appelle les Israel bonds bon beaucoup de pays ont copié avec des fortunes diverses il y a boo xam ne réussir na ko donc souvent quand on parle de cas de mobilisation de l'épargne de la diaspora euh, dëkk yooyu la ñuy cité te yooyu souvent li tax sax mu am solo euh, dafa am ay projets yoo xam ne da koy bëgg a financer dëkk investisseurs yi capital court terme yi dafa naan non non lii moom c'est un peu trop ci bëgg a léegi les gens yi nga xam ne ñooñu ñoo diaspora yi projet yooyu la ñuy jël di soutenir donc ça crée une autre une autre voie un accès pour des investissements yi nga xam ne dafa risqué wala des investissements yoo xam ne c'est li ngay wax long tail risks tu vois donc yooyu dañu war a am ba pare euh, les gens de la diaspora la dañu war a mën a gis visibilité parce que y a pas de confiance affaire business la donc euh, moo tax infrastructure boobu boobu moo manqué woon je pense que c'est l'occasion d'y travailler comme je l'ai dit le discours ne peut pas entrer dans tous ces petits détails là mais quand il parle de s'appuyer sur le, le, le secteur privé dans ce secteur privé la il a des acteurs de la diaspora voilà waaw euh, lu ma ci bëgg a yokk ci comme ñoo ngi ci débat diaspora bi te ma it ci diaspora bi laa jóge euh, juste pour dire que Euh, ça fait vingt six ans maa ngi nekk Paris donc presque ministres yi fay ñëw yëpp ñu leen di fal ministre Sénégal d'extérieur fa lañ may fekk ñuy présenter seen feuille de route mais feuille de route bi dëgërul en fait en réalité voilà mun nga ko confirmer certainement ah. parce que bu ñu jógee Paris dañuy ñëw États-Unis donc mais réellement euh, tu te demandes mais ñii la lañ bëgg a def quoi xamuloo ko tu vois c'est pas clair benn moment sax dañuy yaakaar sax ñu ñoo leen war a indil feuille bi mm. tu vois alors que ñun complété la ñu mën tu vois voilà donc euh, loolu il faut mu ñu régler ko une bonne fois pour toutes que je pense que comme ni ñu cité exemple yi ay Inde depuis 1986 ni mu euh, toppatoo diasporam di ci profiter ah parce que il y le le la fuite des cerveaux mais il y a le brain gain le retour des cerveaux il faut que les gens reviennent et s'impliquent comme de le faire lui tous donc voilà euh, jàpp ci dëkk bi mais aussi il faut ñu am gouvernement boo xam ne dafay lutter contre le brain west brain west mooy ñoo xam ne dañu am doctorat euh, am master mais ils sont réceptionnistes dans un hôtel euh, ils sont vigiles parce que trouvé wuñu liggéey bu ñu bëgg ci bitim réew parce que du bitim réew ñëpp fay am chance su jàng ba pare am fa liggéey dañoo mënatuñ ñibbisi donc ñooñu tamit il faut état bi xool nu mu leen di dimbalee ah ba ñu ñibbisi wala tamit mu dimbali leen ba ñu jéem a aussi évoluer fi ñu nekk parce que mën na nekk parce que Inde aussi dafay jéem a couver euh, ses ressortissants ba ñu occuper ay responsabilité euh, même politique ah boo xoolee euh, Île Maurice seen premier ministre bi il est d'origine indienne bu dee le le le le le maire de Londres ou le le premier ministre tu vois voilà les les les présidents de Google Microsoft tout ça ils occupent des responsabilités te yooyu yëpp day dellu si waat ci dëkk bi voilà en termes d'image en termes aussi de de dividendes et cetera donc je pense que il faut ñu am benn politique de de la diaspora bu cohérente ah et lu ma seetlu aussi bi ngay wax autoroute à sens unique man je pensais à une chose c'est que euh, ñun diaspora bi bu ñu soxlaa xaalis ñu la ñuy laaj non c'est vrai mais bu ñu waree def politique participer ñu ne ñu leen dëkku leen fii xamu leen dëkk bi euh, xamu leen di nit ñi di dund si xam nañ ko xam nga tax ñu xam ko parce que ku ñu woo di ñu laaj xaalis di nga ñu expliquer lu tax nga ñuy laaj xaalis di nga ñu wax ni que hôpital bi doxul aw ma lu ma ko fayee li nga wax ne dama bëgg a ngénte aw ma tu ci ñun dañ ciy xamaale problème mu réew mi te teew ñun dañuy ñëw am na si ñoo xam ne man personnellement mun naa ñëw fii ay 4 5 fois dans l' année parce que des fois damay dem liggéey Casamance parce que je travaille dans la résolution des conflits di leen dimbali ci conflit bi ah. yenn saa yi ma ñëw seet si suma suma famille yenn saa yi aussi ma ñëw politique si donc ce qui fait que je viens beaucoup ici donc faut ñu créer benn sas ah. entre la diaspora et le Sénégal voilà Chine boo fa demee les présidents d'université 80 pour cent ci diaspora lañ jógee ñi diriger les centres de recherche 80 pour cent ci diaspora bi lañ jógee tu gouvernement bi aussi près de la moitié ci diaspora bi lañ jóge ñoom vraiment dañu xam valeur u diaspora bi euh, di leen impliqué pour ñu mën a indi partage seen xam-xam ak waa réew mi pour réew mi mën a dem kanam. Ah. Sur, euh, bon, sur la diaspora, je pense que c'était juste parce que la prise en compte va se faire dans oui, le déroulement des politiques. Sans aucun doute. Moi qui vous Bien sûr, Donc, euh, ça va se dérouler, mais juste, c'est le rappel. Mais ce qui est important, il ne faut pas que la diaspora attende tout de l'État. Mhm. Quelle initiative prendre au sein de la diaspora Nous, nous avions pris, quand on était à l'initiative de monter la Banque des Sénégal de l'extérieur, par exemple. Ah. Donc, si on attend tout, l'État doit être euh, définir les politiques, simplement. C'est ça. Euh, de, Mettre le cadre. De bonnes politiques, un cadre législatif et réglementaire ah. qui nous permet d'investir de sécuriser ah. les investissements de, la diaspora. Je pense que, euh, en tout cas, il y a de, l'espoir. Et aujourd'hui, la diaspora, parce que euh, le président Diomaye a été supporté véritablement en grande partie aussi, en grande partie par le plus grand nombre de la diaspora. Mhm. Et donc euh, ces gens ont confiance. Et c'est important, avoir cette confiance, de dire maintenant je vais au pays, maintenant il faut qu'on crée le cadre euh, législatif pour leur permettre de retourner au pays. Mhm. Et vous dites quelque chose de très important aussi. La diaspora peut jouer un rôle de positionnement du Sénégal. Si. Tout comme euh, vous l'avez fait au Sénat ou au Congrès. Mm -hmm. Mais on peut prendre ces ambassadeurs, c'est des ambassadeurs. Mm -hmm. Mais il y en a qui sont dans tous les secteurs. Absolument. Vous allez à Wall Street, mm -hmm. vous mhm. allez à Londres, dans, les, dans tous les secteurs, la mhm. santé, la banque, etc. Mais ces gens peuvent être des interlocuteurs valables pour positionner le Sénat, pourvu aussi exact. que l'État ait confiance. Absolument. Ça. Absolument. Et, et, ça, c'est important. Je crois que c'est ces paradigmes-là qu'il faudrait véritablement changer. Mhm. Mais ce qui a frappé mhm. dans le discours du président et qui diffère véritablement de ce qui s'est passé, de notre gestion également, parce que jusque la gestion de la coalition Bernard Bokiaga, c'est l'accent mis sur la gouvernance. Mhm. la gouvernance et, et je pense que c'est là qu'il ne faut pas faillir et il faudrait pour cela une un état des lieux des politiques publiques parce que avant de territorialiser les politiques publiques comme euh, nous le faisons il faudrait faire l'état des lieux donc dans la réforme de l'administration il faut également revoir les politiques publiques et certainement réformer certains secteurs pour que l'on puisse répondre à la demande sociale et ce qui m'a le plus attiré, évidemment, on va dire qu'il est attiré par le programme. Parce que quand on lit un programme, moi je suis un intellectuel, il a parlé de mon bouquin. J'ai écrit un livre où j'ai dit la Banque africaine de développement, réformer la gouvernance face au piège de la pauvreté. C'est le titre de mon livre. Donc ce n'est pas ici que je parle de pauvreté et de réforme. Et je pense que ce qu'il qu faudrait au niveau de la, de la gouvernance, euh, la réforme de l'administration, la réforme de la justice, euh, la Cour des comptes, l'OFNAC, véritablement, tous les ingrédients sont en sa main pour que une gouvernance vertueuse comme il le dit puisse s'effectuer et être euh, effective dans le pays parce que là on a eu beaucoup de problèmes sur euh, les questions de gouvernance véritable. D'accord. Et parce que parce que seen discours depuis le début man pour man changé wu. pour man daanaka changé wu li ñu doon woote depuis dix ans ba léegi ñoom ci loolu nekk et tu sens que vision Mamadou Dia ñoom moom la ñu ma wax ko waaye parce que je sais que yaa ma gën a euh, mm. naan on est seul face à notre destin yëpp ay phrases yu on est seul face à notre destin. La responsabilité historique, c'est de rompre les chaînes de la dépendance économique, hein? investir dans la digitalisation loolu bees des procédures administratives loolu moom ñëpp ko savoir je pense bien euh, dina wàññi guerre dina wàññi voilà perte de temps bi mais euh, investir plus et mieux dans l'agriculture la pêche et l'élevage les trois mamelles de notre économie mais doonee loolu du lu bees du lu bees seulement que li des mooy gouvernement bu koy wax bu bëri jëfe euh, li nga wax Mamadou Dia ak waa Pastef ça Mamadou Dia c'est un développement autocentré c'est c'est le modèle euh, endogène qui est totalement différent du modèle de Senghor le modèle de Senghor il est importé il est trop extraverti Bon, maintenant, Mamadou Dia, lui, c'est le développement endogène. C'est l'agriculture, c'est l'éducation, l'organisation des paysans, l'industrialisation progressive. Ça, c'est du patriotisme. C'est un modèle de libération du modèle postcolonial. Bah, le PASTEF s'inscrit dans cette dynamique-là. Ce n'est pas par hasard qu'ils font euh, des références à Cheranta, Mamadou Dia, le Sankara. C'est un mouvement panafricaniste. Ce n'est pas seulement au Sénégal. C'est-à-dire qu'Afrique, on est dans un modèle qui ne tient plus c'est ça l'idée euh, non non seulement gisoo ci sa bopp c'est que fu mu lay yóbbu euh, tu es en rupture avec ta société c'est ça le problème du Sénégal alors que Diomaye il te dit c'est le contraire qu'il faut faire ça il faut rompre avec le modèle étranger C'est pas, il ne faut pas rompre avec notre société. Non, au contraire, c'est pour ça que j'ai bien aimé la cohésion nationale comme fondement de sa politique. Il cherche un projet de société africain, panafricaniste, avec ses valeurs, avec sa culture, avec sa diversité. Mais am na quand même base c'est-à-dire nu ñu gisee ñoom agriculture euh, ce n'est pas seulement euh, avoir une production Non, c'était d'organiser notre production endogène. C'est-à-dire que l'objectif, c'est l'autosuffisance alimentaire. Soo amul autosuffisance alimentaire, tu ne peux pas compétir dans un marché mondialisé. C'est pas possible. Bah, il l'a dit, monsieur le maire. Par exemple, l'image de de son terroir, la production. C'est que l'État ne comprend pas l'enjeu. L'État ne comprend pas l'enjeu. Mais ça fait maintenant quelques mois qu'il nous l'a dit, ça fait des mois qu'il a écrit son livre. Ça Tout le monde sait ce qui se passe dans ce terroir-là. Mais pourquoi l'État ne prend pas l'initiative de développer cet artisanat-là, de développer le, le, riz, de développer euh, le mil Mais normalement, je pense que Sénégal a un problème de, de, de nourriture. Donc c'est un problème d'option. Et je pense que Dioma, il est conscient que c'est possible. waaw c'est la même chose pour euh, pour l'industrialisation l'industrialisation c'est que nous il faut qu'on qu'on avec le complexe des Européens non <laughs> on ne peut pas accepter que jusqu'à présent nous notre industrie ne se développe pas ñoom leur vers l'espace. Bah, tu, tu as, tu as, imagine-toi, tu as, tu, imagine le, le, le, tu as, tu as le pétrole, Tu, tu Mais quand tu t'imagines que tu as maintenant le pétrole, le gaz, et on te dit il faut pas t'industrialiser, c'est absurde. Alors qu'eux, ils ont bâti tout autour de ça. Donc je crois que bon pour man euh, tout le monde c'est vrai l'a dit hein euh, base bi moom posé na ko. il a une vision il a son projet maintenant euh, bon on prend l'exemple de, de la diaspora c'est vrai que c'est important quand même que waa Pastef ñu delloo njukkal euh, euh, Pastef à à l'étranger mais il faut aller plus loin c'est est-ce que c'est pas notre diplomatie qu'il faut revoir la diplomatie économique la diplomatie sociale culturelle la diplomatie trop occidentalisée là moi je n'y crois plus il faut avoir une diplomatie économique. Ben, on a l'expertise. Comment organiser le transfert technologique Est-ce que nous, à partir d'ici, on peut le faire Non, on ne peut le faire qu'à partir de la diaspora. Ils, ils, ont des chercheurs, ils ont des, des financiers, ils ont des travailleurs, ils ont tous les métiers. Mais l'État n'organise pas le transfert de notre diaspora vers, vers chez nous. Il, il voit que l'argent, comme nos parents. ah et ça moi je trouve que c'est absurde que nga am potentiel bi nga am jas par exemple je bon je souvent les jeunes de Pastef la ils sont capables de mobiliser cent millions en une <laughs> en une heure de temps à l'étranger en une heure de temps et puis dañuy ñëw def seen soirée culturelle mm-hmm. organiser cent millions mm-hmm. mais levée de fonds vite fait on on n'essaye pas de réfléchir capture cet argent l'organiser la, la diaspora c'est une force économique mais la diaspora elle est elle est elle est souvent déçue parce que boo seetee chaque alternance da ngay gis retour massif des Sénégalais de l'extérieur chaque alternance 2000 on l'a vu 2012 on l'a vu te certainement dinañ gis 2024 da ngay gis ay visages yu bees ay têtes yu bees yu ñibbisi ak yaakaar mais après yaakaar bi souvent vas-y doyen quand, quand tu prends non juste un mot cest à bi ngay wax jaar mais tey ji la mu gën a présent c'est au niveau de la diaspora mm la la diaspora elle est très sensible au sort de l'Afrique à l'étranger ah. pourquoi parce que c'est des patriotes bien am na li ñu gis foofu gis seen dëkk ñu ne leen lii jaaduwul et je crois que c'est ça qu'il faut ex je pense honnêtement. parce qu'on a des ngay gën a xam si ko ginnaaw. mais tout le temps dañuy wax dëkku leen fii kañ ngeen ni ñibbi ñëw leen il faut ñu bàyyi yooyu daal. si vous me permettez. Je, je peux juste partager. Moi, j'ai quitté volontairement la Banque africaine pour rentrer. Mais c'est vrai qu'on ne valorise pas souvent. Dès que vous rentrez, c'est fini, vous êtes un acquis. Donc ça aussi, je pense que dans le, la modélisation du retour mm-hmm. ou de l'investissement ou des personnes ressources, mm-hmm. il faudrait peut-être euh, réfléchir avec euh, le gouvernement mm-hmm. pour voir, euh, parce que ça ne sert à rien. Mais heureusement, moi je suis rentré pour ma ville, et pour partager mon vécu international avec ma vie. Ah. Je voudrais juste, euh, sur un point, euh, euh, rejoindre un peu le doyen ah. sur le modèle de, de Dial, le modèle endogène. Alors, euh, je pense l'industrialisation passera nécessairement par le développement du secteur primaire. Parce qu'il faut le primaire, que ce soit l'élevage, les trois mains, oui, les trois mains, et même, et même les, les, les mines. Parce que pour qu'on ait des industries, ah. il faudrait que l'on transforme d'abord la matière première. Donc il faut, et déjà ce qu'il peut faire, et j'ai beaucoup aimé ce, ce, ce, ce, caractère paysan du chef de l'État, en étant moi-même paysan, ah. et qui connaît la, la terre, qui valorise les, les, les paysans. Aujourd'hui, on a des surfaces euh, énormes qui sont inutilisées, il y a de l'eau qui manque, mais si vous survolez la Chine, quand vous descendez vers, vers Shanghai ou Pékin, vous voyez le désert chinois, mais il n'y a que des bassins de rétention. Et aujourd'hui, ils font le Dakar, le, le, le, l'hibiscus et tout ça. Donc, ils vont nous concurrencer à très court terme. Je pense qu'il faut choisir. On ne peut pas faire les, les, les, les, trois ou les quatre en même temps. Mais aujourd'hui, on a l'agriculture. Il faut qu'on cultive en toute saison, qu'on se nourrisse suffisamment. D'abord, le premier facteur de lutte contre la pauvreté, c'est se nourrir. l'agriculture avec un grand A. avec un grand une révolution pêche. agricole. boole ci pêche bi. waaw euh, le développement rural. waaw le développement rural élevage bi. waaw oui parce que pêche bi aussi il faut que il faut. le que... développement rural on peut mettre la pêche l'agriculture l'élevage et je pense qu'il faut investir massivement dès les premières années sur ça maintenant là où la jeunesse peut aider le président de la République. Mais cette jeunesse-là, il faut qu'elle accepte de retourner à la terre, de retourner à la pêche. Mais il ne faut pas que je suis maîtrisard, je dois simplement avoir un job dans un bureau climatisé. Et je, je, là, il y a le, le, le, la citoyenneté, l'éducation civique. Alors moi, je pense que le ministère le plus important pour ce pays et qui n'existe pas, c'est l'instruction civique, l'éducation civique. pour de développer un nouveau type de citoyen euh, inculquer le patriotisme quand vous allez dans des pays les pays qui ont réussi ou qui sont sur la voie de réussir comme l'Afrique du Sud patriote le Maroc patriote la Tunisie le Ghana le Nigeria si vous invitiez un Nigérian ici vous aurez tout en vert et blanc déjà le drapeau mais ici les gens ne savent même pas comment mettre l'étoile sur un drapeau etc. je pense que il nous faudrait Euh, pas rebâtir mais il faudrait re, re, recentrer le Sénégalais sur ses valeurs euh, fondamentales et là c'est de là qu'ils vont rejoindre Mamadou Dia et pour avoir un développement endogène il faut avoir un Sénégalais patriote mhm. et nous ne sommes pas suffisamment patriotes d'accord d'accord su ma mënee jës ci beneen kii bi voilà euh, c'est ça li ma bëggoon wax mooy c'est une très belle analyse qu'il a faite mais le problème c'est que les facteurs d'influence di influer ci éducation nit ñi yemul ci rek li ngay jàng école donc am na facteur yu bëri donc it c'est une très belle idée mais je me demande est-ce que mën na nekk donc man je pense que la meilleure manière de tirer les gens vers l'agriculture c'est utiliser le signal du marché si les gens peuvent s'enrichir en, en devenant des paysans. kenn du leen éduquer des fermiers des fermiers. voilà mais c'est ça je veux dire que si on peut bu ñu lay fay xaalis bu bëri pour nga nga nekk paysan. mais kenn du la kenn du la jàngal pour nga nekk un patriote. mais il faudrait juste mais il faut que ça paye. ba mbay mi ña ciy liggéey. nga nga ciy jëriñu dañ leen di ñee. fu ñu leen ñee dañuy daw wuti. qui deviennent des fermiers comment faire. voilà c'est ça exactement ça donc c'est le signal du marché qu'il faut utiliser. plutôt que la reconversion idéologique. voilà donc ñu ñëw ci euh, li nga xamante ni moom moo di les réformes. annoncé na ay réformes. oui du Diomaye annoncé na ko te li ma ci wax rek moom laay wax sànq ñoom seen i mbir doon loo xamante ni dafa bees la ñu doon wax boobu ba léegi ñoom nee nañ du ñu wàcc seen yoon en fait parce que réformes yi ñuy wax yëpp. yàgg nañ ko wax yàgg nañ ko décrier bokk na ci euh, bon c'est ça fameuse phrase les sénégalais sont fatigués sont braves mais fatigués léegi ci la ñëw ni euh, les jours à venir des mesures fortes seront prises dans ce sens politico-judiciaire une gouvernance plus respectable des droits humains alors que bu ñu xoolee élection euh, campagne électorale bi passé candidat yëpp à l'exception peut-être de Amadou Ba ñeneen ñëpp réforme judiciaire lañ doon diggaate que justice bi foog ñu soppi ko ni muy doxee nangam nangam ñëpp décrier ni justice bi doxee ñoom seeni première réforme bokk na ci wàllum justice wàllum euh, nu ñuy organiser élection dem na sax ba ni dafa jaarootul nit ñi am carte d'identité ñu koy bindal ci gannaaw ne peut pas voter yooyu yëpp dañ ciy dañ ci jël ay ay pexe organiser les assises de la justice ah pour identifier des pistes de solution et cetera et cetera et premier pas bi mu teg mooy euh, avant Euh, avant-hier euh, euh, muy le 3 avril 2024 président bi toutes les mesures prises par son prédécesseur lors du réunion du conseil supérieur de la magistrature en date du 29 mars hmm. abrogé na ko bokk ci ki ñu faloon mu nekk président cour suprême juste ak post bu bees bi ñuy jël créé woon ci suuf ci wàllu pôle financier comme gestion finance ñaar yooyu yëpp dindi na ko te bi ñu ko bi ñu nommé euh, bi ñu ko nommé Mamadou Ndiaye c'est son nom je pense bien le magistrat gis nga presse bi ni ñu titré ah Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye et, et c'est le c'est le frère hein, à à Cheikh Ndiaye du conseil constitutionnel okay. oh. le juge c'est son frère maa ngi euh, ñoo ndey ak baay ñoom ñaar mais kii yàgg na trop cour suprême te un an sax moo ko dese pour mu dem à la retraite ah. Ablaye Ndiaye bi mu ko bi ñu ko nommé ah gis nga ñëpp ñu ngi doon wax naan président Macky Sall li mu def nii fan la ko teg koy waaj a dem deux jours moo la dese ngay nommé ay nit et cetera fan la ko teg moom bi mu ñëwee loolu la njëkk a dindi ah. mais bi mu ko dindee aussi nit ñi li ñu wax moom mooy waroon na respecter les formes kee bi ñu koy nomee conseil supérieur de la magistrature dajaloo na mais bii waroon na leen dajale waat parallélisme des formes pour respecter le parallélisme de formes mais aussi est-ce que mën na réunir le conseil supérieur puisque amagul garde des sceaux loolu mooy débat beneen débat bi mu bëggoon teg ak ñu ñëw ci yeneen réforme yi mu wax yépp alors euh, Sénat bi et cetera et cetera alors moi je pense que juste titre je ne sais pas nous par exemple moi je connais beaucoup plus les institutions internationales mais su fekkee dañ laa nommé nga bees quand boo fekkee da ngay dem six mois avant ngay dem am na décision yoo xam ne mënoo ko jël faire rawatina nag un je pense que ce qu'il a fait de par mon expérience ma petite expérience ça me paraît euh, tout à fait normal qu'il ait annulé ces ces nominations là ça c'est mon c'est mon point de vue personnel maintenant est-ce que ni mu ko defee woon sur la forme convoqué leen le temps ne le ne le permet pas si quelque chose est est, est, est illégal illégitime et que n'est pas conforme à l'orthodoxie de la gouvernance on n'a pas besoin de, de retourner en arrière pour convoquer, pour le faire. Ouais. Ça, c'est mon point de vue et, et ça n'engage que, que moi. beneen bi les réformes les chantiers sont énormes euh, c'est-à-dire que lui ils ont il a ils ont leur vision parce que c'est un programme c'est un projet mais un projet ce que j'ai pas lu dans le projet aussi c'est les trappes les les les les les les les les, les, les pièges et les inconvénients c'est-à-dire quels sont les risques en fait pour dire les risques euh, parce que euh, toute euh, on a vu Abdou Diouf avec euh, euh quand il a monté euh, la répression de l'enrichissement illicite une seule personne a été condamnée Macky Sall une seule personne a été convoquée est-ce que lui aussi ce ne sera pas une seule personne quels sont les éléments qui font que on ne peut pas dérouler alors ça je pense que ça doit être analysé est, est, est, est résolu. L'autre élément au niveau de la réforme, c'est il faudrait une, une justice qui, qui, qui réponde à la, à la, demande sociale aussi. Et, il faut les libertés. Ils se sont battus. Le PASTEF s'est battu pour des libertés individuelles, pour les libertés d'association, les libertés de... Donc il faudrait que quelque part ces libertés soient protégées. Mais attention, je disais tout à l'heure à mon ami Ibrahim, il faut un État fort alors euh, un bon Américain comme je dirais je le taquinant l'Américain est contre tout ce qui touche aux libertés individuelles et déjà dans sa tête il s'est dit mais un État fort ça va être une dictature éclairée mais mais vous savez il arrivera un jour où le président sera obligé d'être assez, assez assez un peu trop rigide par rapport aux promesses parce que là maintenant il a, il gouverne maintenant il exécute un programme Et tout ce qui est obstacle à la réalisation du programme, il devrait pouvoir réagir. Et tel que je l'ai vu, il doit être euh, d'une d'une fermeté, je ne le connais pas personnellement, mais il a montré les preuves d'une fermeté. Et quand on voit l'attention qu'il prête, sa capacité d'écoute et sa capacité d'adaptation, ça veut dire que euh, ce n'est pas quelqu'un qui va qui, qui, qui, qui, va fléchir, parce que euh, l'exécution du programme le commandera. Donc je pense que on est on tout à fait d'accord que il puisse euh, déjà donner de bons signes et ça c'est un bon signe pour ouais. le départ. d'accord euh, bokk na ci publication des rapports. pour mhm. des comptes. Mhm. IGE. Mhm. remplacer Sénat. Euh, rationa rationalisation du nombre de partis politiques. xam naa yéen di ngeen ci bopp <laughs> ak leur financement. le potent euh, la protection des lanceurs d'alerte. yooyu yëpp bokk na ci ay réformes yi nga xamante ni yow par par ban moo la ci gën a. ban moo la ci gën a intéressé non yëpp yëpp moom intéressé parce que réforme yi yëpp c'est pour euh, Sénégal jëm kanam la d'accord mais euh, mun naa wax ci parti politique yi parce que parti politique yi. rationaliser les partis rationaliser bëri nañu. waaw da lay leer ni nguur bi bu daanoo c'est clair. non mais dafa am ay préalable parce que trois cent partis politiques yi mënoo wax ne que trois cent yëpp ñoom ñooy dem aux élections voilà munoo wax tamit que 300 yëpp même seeni borom est-ce que ñoo ngi dund ba léegi non mais on se dit la vérité. mais bu dundul parti du pour pour. nettoyage quoi oui nettoyage d'abord. nettoyage et réformer. voilà yoo ñoo fi nekk. Euh. c'est sûr que du ñu waxati 300. beaucoup moins parce que am na ñoo xam ne ba léegi voilà dootul parti quoi. moi j'en ai attends j'en ai vu même un. ça me ñu ne dañoo joxe ay ay convocation di wër ay sièges parti suba ba jant. gis nga amuñu téléphone amuñu téléphone mais mais mais aussi aussi xam nga à l'ère de la digitalisation mais parti am siège loolu c'est anachronique. Mm-hmm. parti mën na dund du am siège. ah bon mais bien sûr. siège bi mais les, les gens les gens se réunissent dans les dans les groupes WhatsApp. Oui, les gens oui, oui, les, les gens arrivent à faire des réunions Zoom. Non, tu pour pour, connecter la diaspora ak seen base. pour connecter ku jógee Kaolack. di ñëw war a ñëw réunion siège bi ah. mënoon nañu liggéey te duñu gisante mais télé bi dafa war a am. oui euh, mais mais mais loolu dafa man man ce matin ce matin. attends attends attends wax la. non dama bëgg wax ne que il faut aussi mentalité évoluer. parce que loolu rek du critère. man ce matin nii. ah maa ngi yow 5 heures du matin 6 heures du matin joxe naa sama cours. ba 11 heures ma ñëw fii. ba tey à distance là donc juste pour diir que mën nañu utiliser yooyu yëpp ah pour que pour que mu am plus de flexibilité. ci parti politique yi mais mais mais ma egg xaaral ma eggale xaaral ma eggale ci ci côté boobu loolu laay wax ci déjà ñu xool il faut faire le point sur le nombre de partis politiques nga xam ne ñoom ñooy fonctionner. Hmm. Euh, su loolu weesoo nga xool léegi sur la démocratie interne. Hmm. Moi, j'ai publié un livre en, en 2006 qui s'appelle Démocratie alternance politique au Sénégal. <clears throat> mais loolu laa ci analyser la démocratie interne fii dafa am problème parce que amul alternance des fois la tête des partis politiques le même leader il est là depuis très longtemps moom mooy dem moom ah? moom siège bi moom lépp mooy mooy décider mooy mooy choisir ci lépp loolu nag bu demee ba yow nga nekk ci partie bi di fa liggéey am fa am fa ambition d'accord ba sa heure jot ñun la yow teg nañ la de côté jël ay mesures non conventionnelles utiliser ko écarte la yow nooy def da ngay bañ a amati ambition wala da ngay wala yoon may la nga dem créer sa parti bopp nga sa ambition nga jaarale ko foofu loolu mooy tax parti yi di bëri te boo xoolee euh, ñu ci bëri man mi nekkoon naa PDS moi j'étais le président des cadres du PDS en France nekk naa UGTEL ci étudiants yi ma fa créé UGTEL ak des jeunes évoluer foofu ba war a ñëw toll ci war a mën a nekk xëy na candidat au PDS ñu ne kan léegi c'est Karim <laughs> ils ont bouché l'horizon nooy def da ngay continuer topp si ginnaaw Karim wala da ngay dem wuti sa parti da ngay wuti sa parti bu dee am nga compétence yoo xam ne da nga ko yéene Sénégal donc il faut loolu ñu bàyyi ko il faut ñu créer ay primaires organiser affaires yi ba nga xam ne dina am ay courant sax ci biir. nga xam ne doo génn. d'accord ak leader bi pour faire place à des mouvements maintenant. ah le des partis. est-ce mais que c'est pareil mouvement bi c'est mouvement mu ngi fonctionner comme parti bi non mouvement bi nu muy fonctionner c'est comme un parti. sauf que ñoom xëy na amuñu wutiwuñ récépissé wala du ñu am ay siège mais mouvement yi ma gis comme parti la ñu organiser woo tu vois donc euh, man pour man il faut ñu def loolu ba pare régler loolu ba pare après bu fekkee nag. xëy na day cher pour état muy organiser élection ak ay parti ay candidats yu bëri mun nañu wax ci constitution bi ah bu ñu ci waxtaanee ba pare ñu ne léegi euh, cinq candidats mooy am mais cinq candidats yi dañuy jugee ci ay courant yow bu dee indépendant nga da ngay dem defi primaire ak les indépendants yaa ni indépendant nga yaa d'autres indépendants comme toi nga dem defi sa primaire foofu nga inscrire foofu nga def primaire boo gañee indépendant yépp yow yaay candidat bu jugee ci courant indépendant yi nga libéraux yi ñu dajale leen yow nga dem defi foofu primaire socialiste yi ñu dajale leen ci vois bu ñu ko dajale noonu regrouper ko mën nañu ñëw ba nga xam ne dina am vie politique nag bu dance parce que en tant que parti dinga nga participer di dem ci médias yi di nga truc tu vois ça c'est bien pour la démocratie mais pour dem élection il faut nga jaar ci filtre yooyu te boobaa sax parrainage du amati tu vois loolu laay wax ci parti politique yi léegi li mu wax ci digitalisation bi c'est extrêmement important parce que tey Sénégal rang xam nga ban rang la jël 143e e-government index tu vois sur 193 tu vois euh, ay Gabon ay Maroc île Maurice Seychelles ñoo ñoo jiitu de loin te te digitalisation boobu dafay am impact ci doing business bi parce que ñi nga xam ne dañu digitaliser seen euh, seen économie paiement impôts yi à distance ak entreprise yi ak yu bëri ñooñu dañuy dañuy am une flexibilité ci investissement yi ak entreprise yi ñëw di liggéey foofu et ça c'est très important fii am na ñu benn agence gouvernementale du numérique des trucs comme ça oui mais voilà mais mais en réalité en réalité euh, gouvernement yi par exemple dama bëggoon dem ministère de l'enseignement supérieur euh, ñoom seen site internet xam nga seen siège fu mu nekk avenue Cheikh Anta en face école Manguier loolu lañ ci bind avec un numéro téléphone boo xam ne mun nga woo bu suba kenn du jël kenn du jël parce que numéro boobu ah, baaxatul. mais <laughs> mën naa la wax li fa li fa fa léegi xam fu ñu nekk ñoo ngi ci sphère ministérielle yi jam ñaajo foofu lañ nekk. te ñu ngi nekkoon à l'étranger. exact xam déjà loolu rek yow boo nekkee à l'étranger même au Sénégal nga bëgg leen a situer ñoom li ñuy def seen site internet ak li am bokkul. ça c'est un problème parce que y a pas de mise à jour des sites internet boo wootee téléphone wala nga bind mail kenn du la tontu donc loolu ça c'est du déclaratif. dañuy ñëw ne la digitaliser nañu administration bi moderne mais en réalité c'est du déclaratif c'est absolument c'est pas c'est pas vrai tu mais pour man il faut ñu def ko ci secteur yooyu secteur éducation secteur finance yi ah euh, tous les secteurs yi nga xam ne état civil bi et cetera waratoo dem di rang mairie bi euh, centre gaspar Camara naan yaa ngi wut foofu. exact exact tu vois da ko war a am. d'accord et puis dernier dernier point bi rek lay jeexale ci ci surtout ci boobu. mais euh, dañu war a def même ci communes yi léegi ay communes lañu cinq cinq cent cinquante deux communes la ñu am tu vois communes yooyu yëpp war na am foofu euh, benn agent boo xam ne moo yor état civil bi. Mhm. ku judd foofu. Mhm. Euh, soit nga def ko ci ci maternité bi bu amee wala nga def ko foofu ñu déclarer la euh, ba pare moom nag une incitation incentive mhm. tu vois loo xam ne boo ñëwee déclarer rek dañ lay jox benn vingt mille wala trente mille xam nga loolu mën si <laughs> au minimum nga jur sa doom war ko déclarer ñu naan dañu lay neexal non parce que dañ leen di encourager naa la wax lu tax parce que euh, da ngay gis ku dem ba war a def certificat d'études ah, wala entrant sixième amul kayitu juddu mais est neexal bi dafa war a doon ay affaire non neexal bi te war a yee nit ñi gën a yomb xam nga tax wax loolu hmm. parce que warul am zone de non droit ma li ma woowee zone de non droit mooy zone boo xam ne état amul benn njariñ foofu ñoom xamuñu état état xamu leen est-ce que xam nga ñu nekk ci frontière gambienne bi ñoom Gambie la dem école. Mhm. bu tuut la utiliser. Mhm. tu du ñu utiliser monnaie monnaie monnaie sénégalaise. parce que état état sénégalais def defalu leen dara. ñoom amuñu benn obligation envers l' état aussi n'a rien fait pour eux. loolu lay bañ. et bu leen encouragé ñu xam ñu mën a maîtriser suñu politique de naissance mhm. ah mën a maîtriser suñu politique de de décès xam suñu population mën a def ay politique de prévision parce que boo prévoir pour un million te retrouves avec dix millions yu ci war a soxla mhm. mais tu passes à côté Dramé waaw leneen ba léegi waxaguñ ko ci plateau bi te Diomaye loolu la njëkk a wax mhm. le président jomay Faye mooy xeex guerre wàllum provision maslaa duñ ci am luñ ciy tay loolu lañuy ñuy jënti déjà digitalisation yi ci gannaaw loolu la pour moytu guerre ak yu ni mel l'autre chose mooy les lanceurs d'alerte ñu protéger leen hmm. waaw l'autre chose hmm. mooy système boole bi système <laughs> système boole avec une donc euh, yooyu yëpp ngir xeex guerre la parce que lanceur d'alerte yi aussi ñoom duñ ci wax bëri na mais affaire bi Sénégal nar na yëngu ah duñ ko seetaanee d'ici peu dina oh. bëri coow li dina bëri <laughs> partout partout. drame mais c'est de c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre que les gens euh, loolu généré bruit. mais avant loolu nee na. Ah, ah. les prête-noms ah, may genre amnistie pour ñu ñëw présenter wu mais loolu lu important la parce que. souvent les gens quand on parle de développement dañuy yaag dañuy commencé ci industrie ak yeneen yi ci des mais am na loo xam ne moo ëpp solo yi nga xam ne les premiers économistes wax nañ ko yi nga xam ne mooy nga taxawal système boo xam ne corruption amu fa parce que corruption boo ko amee ci dëkk san ce n'est pas plus important ñaata richesse ngay produire c'est comme ngay dem rooti euh, ndox ak siyo boo xam ne dafa bët na lépp loo produire balaa nga egg kër ga mu mu gën a voilà j'ai été vraiment euh, très content bi mu euh, énuméré point yooyu ci ci ci discours am bi. waaw mhm. wax nga ko wax nga ko sànq avec la cour. Euh, Macky Sall bi mu ñëwee. Euh, déglu ma yoonu je comprends. may ma tuuti ma ñëw. may ma tuuti ma ñëw. parce que il dans le même discours xam nga cité nga fi ay adjectifs. mooy réconcilier léegi lii problème bi mooy y a des gens qui vont penser que comme il a dit ces termes là li nga xam ne c'est dans le cadre de la réconciliation on va tourner la page bien sûr on va tourner la page en certain moment même mais il faut que les gens sachent qu'on va lire la page avant de la tourner waaw donc euh, euh, message yooyu mu yónnee yi nga site noonu kooku ça se fera et c'est une grande première parce que bu ñu ko deful tous les efforts qui auraient été déployés dara Sénégalais duñ ko gis a vu et comme euh, le même message a été tenu par Ablaye Abdou Diouf Ablaye Wade également c'est ça Macky Sall bu muy ñëwee bon pourtant c'était un programme de gouvernance qu'il avait porté au pouvoir yoonu yokkute bi mu doon wax gouvernance vertueuse c'est pas un concept que les gens de passé font inventer xam nga mais la réalité on l'a vu donc en réalité comme il a dit comme on l'a fait avec Dia on a pris son modèle on va le mettre en place les autres présidents yi nga ne ils ont tenu des yoo xam ne c'était vraiment attendu du peuple sénégalais lutte contre la corruption defuñu ko on va le faire et en fin de compte nous on n'aura presque rien inventé on aura juste réussi à mettre en place ces bonnes idées yoo xam ne nit ñi yàgg nañ ko débattre mosuñu ko mettre en place voilà. Euh, Albert euh, le blason de la justice euh, président Bassirou Diomaye wax na ko. mu nekk ñoom ak justice nag dañoo dañoo dañoo yàgg am ay jafe-jafe dañoo yàgg jaamarloo moo tax bi ñu nee prip loolu lañ njëkk a lijjanti wàllum redorer le blason de la justice parce que quelqu'un qui a fait onze mois en prison et qui se retrouve au palais de la République hein, en l'espace de ñaata ñaata temps la am même pas vingt jours de liberté génn prison dugg palais kooku je pense que li nga war a njëkk a lijjanti mooy li la dugaloon prison surtout que page Facebook la post Facebook la woon pour dire que euh, nu ñu koy wax ci sax non non non la le le la phase lay lay kii bon pour dire que on est en train de <laughs> man ñëwee naa ko wax. parce que yi bàyyi ma kii ko léegi doyen lu ci mën di am daal. jëlee en tête parce que wax ko kay mooy xaw a doy mooy clochardisation de notre. c'est ce que Diomaye a dit. non jël ko. daf ci kaso bi fekk ko fi donc bu ñu ñëwee ni ñoom justice dañ ko bëgg a redorer son blason. voilà est-ce que ñenn nañu du ñu ni waaw dañu bëgg a farantoo et cetera et cetera non c'est que qui euh, que ñoom euh, président de la République premier ministre euh, bon am na nu ñu gisee justice sur les quatre ans avant ñuy jël nguur c'est les principales victimes de la justice sénégalaise en c'est les gars du passé ah. donc am na am na lu ñu am na lu ñu am na lu ñu dund Mais ce n'est pas l'aspect justice pour moi qui est important, c'est l'abus administratif. C'est l'abus d'un pouvoir. C'est un pouvoir qui a utilisé l'administration et la justice contre un adversaire politique. Ouais. Alors, il faut faire vraiment le, le distinguo. Hum. Euh, être nuancé. Parce que c'est la justice qui nous a sauvés. S'il n'y avait pas ce conseil constitutionnel assez ferme sur les principes, sur euh, euh, l'éthique, oh, oh, oh, on serait dans, dans, dans, dans bon dans la mélasse aujourd'hui donc am na quand même des parts exactement oui non c'est que la justice c'est la faiblesse de l'État du Sénégal toutes nos institutions fonctionnent hein? le pouvoir exécutif législatif judiciaire on a un État formellement mais notre justice ne marche pas parmi il disait tout à l'heure la corruption mais la corruption commence d'abord elle est au cœur de notre justice Comment tu vas lutter contre la corruption de la justice <laughs> En utilisant cette même justice pour la combattre. Non, parce que <laughs> ah, c'est parce que dañu yaakaar ni corruption am na ci justice moo tax ñu am fitu parce que loolu fitu am. que. bon il faut pas qu'on tombe dans le piège ça on est déjà dans dans un grand piège là. c'est loolu tax ma ne la discours bu Diomaye bi il est bon le gouvernement va être mis en place c'est bon c'est les de piliers. de l'État tel que Diomaye va le décliner mais il un troisième axe il faut que les gens se mettent dans la tête tey jii Diomaye warul engage une quelconque action publique sans que amuñu déclaration de politique générale du premier ministre il faut recentrer gis nga ni ngay waxee justice ki ñëw agriculture ki ñëw industrie ki ñëw diaspora tu disperses l'État tu disperses l'opinion il faut recentrer l'action de Diomaye et du PM autour de la déclaration de politique générale pour man tant que amuñ politique de déclaration générale justice bi doo xam fan naka qu'est-ce qu'il faut engager comme réforme ah. qu'est-ce qu'il faut engager ah. il a, énormément de choses tu d'être deux ans dans des réformes ah. et ça va être l'engrenage Diomaye ne doit pas accepter de rester dans l'engrenage de, de, des réformes. C'est contre-productif. Ouais. Donc, nous nous recentrer sur la politique euh, euh, de Ousmane Sonko, que tous les ministres qui seront nommés euh, travaillent autour de un mois, deux mois, trois mois pour avoir un, une orientation générale du gouvernement. Effectivement. Maintenant, pour les réformes, là aussi, il faut qu'ils fassent attention. Une réforme, ça, est, elle est pensée. elle est pensée c'est-à-dire que première réforme pour moi c'est comment réformer le régime présidentialiste c'est le goulot c'est ça le blocage comment le réformer bon c'est vrai que le na nekkatul secrétaire général mais ça règle pas le problème le problème c'est comment quel est quel quel présidentialisme il nous faut c'est la question de gouvernance fondamentale ouais. ça c'est une quel quel présidentialisme qui est, qui voilà, est débattue dans le quel, sont les organes la gouvernance politique la gouvernance économique la gouvernance culturelle on est c'est la question de fond ouais. c'est-à-dire boo régler système bi le, le, le régime présidentiel nga xam sa ni nga nar a gouverner là tu peux décliner sur les cinq ans mais soo nekkee dans les détails ma dugg ci les partis politiques ma dugg ci corruption ma dugg ci tu vas pas t'en sortir. que yéen on comprend donc il faut avoir. un il des, il faut des macro voilà. en euh, je comprends sur euh, rebondir euh, et dire que il a beaucoup parlé de la reddition des comptes. Mhm. vous avez parlé tout à l'heure des whistleblowers. Nous avions les whistleblowers dans notre institution, mais il a un contre un contre Il y a des donneurs d'alerte qui, qui donnent de fausses informations. Ça, oui. fait, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc il faut aussi une politique de sanction. évidemment, de ces, de ces donneurs d'alerte qui, qui donnent de fausses informations, parce qu'on ne peut pas avoir une administration qui va passer tout son temps à aller sur des choses qui sont fausses, parce qu'on sait comment fonctionne le Sénégalais. da ngay gis nga am benn oto xamul nu ko amee mu ni waaye lekk na bi def lii et cetera bon beneen bi. Sur la reddition des comptes, là, tous les gouvernements, partout, on est d'accord que quand vous gérez, vous devez rendre compte. Donc, euh, la transparence. Mais ce qu'il dit, pour le, le, PASTEF, tel que c'est structuré, où vous avez le président Ousmane Sonko, le président de la République, serait été excellent dans un régime parlementaire. Euh, peut-être que demain, on ne sait pas, on va aller vers euh, un référendum qui va faire un régime parlementaire. Ça va régler définitivement cette question. comme à l'instar de, de, de, de, beaucoup d'autres pays. Et ça fonctionne très bien, le Cap-Vert tout près, mm-hmm. et qui est un modèle de démocratie. Et, en ce moment, on, on, va... Mais dans un premier temps, je pense qu'on ne peut pas tout prendre. On peut lancer ce qui est développement, par exemple, le secteur primaire, comme on a dit. Euh, ensuite, se focaliser un par un, parce que toutes ces questions ne peuvent pas être résolues en même temps. Mais ce qui est urgent, mettre en place le gouvernement, mm-hmm. euh, la politique... Euh, le général qui, qui ne va pas trop s'écarter du discours du, du, du, président de la République qui était véritablement un discours programme. Et maintenant, aller à l'essentiel. En tout cas, ce qui est important, c'est de dire que aujourd'hui, euh, il y a une forte attente. Les gens sont pressés et il ne faut pas que euh, qu'il y ait un goulot d'étranglement dès le départ. Euh, et, et, là, il faudrait que le, le parti, les porteurs du projet, les porteurs du projet, parce que le projet n'est pas simplement porté par un parti, c'est porté, il veut que tous les Sénégalais portent le projet, que les porteurs du projet sachent que le goulot d'étranglement, c'est les hésitations au départ, c'est la lenteur de démarrage. Et donc voilà ce que je pense sur euh, cette question. Euh, oui, j'allais dire que euh, réforme, il... mais il ne parce que de toute façon la démocratie est une asymptote donc ça tire vers l'infini mën nga réformer ba sonn mais tu n'atteindras jamais euh, c'est un idéal euh, d'ailleurs il y a des démocraties parfaites les euh, pays du nord des démocraties imparfaites et cetera mais am na yoo xam ne mënul ñàkk et je pense que daf koy daf koy def parallèlement du nekk day nekk ci benn voilà benn point nii ci réforme institutionnelle toog foofu rek non pendant que mu koy def yeneen day nekk ci yeneen front comme ñu déclassé euh, déclassifié. voilà tu waaw c'est ça. bu ñu tegee coono bi rek voilà. pour la la justice vraiment euh, justice ci biir démocratie dafa mës a am problème. et je je veux même euh, l'histoire nous sert de référence je veux aller vers euh, la démocratie classique ah bu njëkk ba ni ñu doon def mooy da ngay taxal kenn comme li mu wax dangay ñëw boole kenn. voilà soo ko boolee ñun ne léegi euh, tel tel moment de l'année lañuy la ñuy jugé mm-hmm. léegi yow da ngay dem nga wut ay nit yu voté ah six mille personnes yoo xam ne dañuy voté pour accusation boobu ñu mun ko voté buñ ko voté te propagande rek lay nekk ah mm-hmm. boo propagandé ba ñoo ñu d'accord ci ñu voté ko kooku dañ koy jël ñu is ñu kii ko euh, exilé ko mm-hmm. tu vois ostracisme lañ koy woowee ci vois nga exilé wu nga dem tu vois donc je suis dañ ko yàgg a euh, lu ñu mën mooy wàññi ko surtout di ko utiliser pour des raisons politiques moo tax ñoom euh, ñu indi j'ai lu le programme la cour constitutionnelle tu vois à la place du conseil constitutionnel parce que conseil constitutionnel juge électoral. dañuy rejoindre le PDS oui c'est possible parce que comme li ngeen wax sànq. comme li ngeen wax sànq. c'est le programme des assises. oui absolument xam nga fii. non mais xoolal pratiquement wax nga ko ci début bi bi ngay introduire fii presque lépp proposé nañ ko fii pour nga am fi lu original la ah, c'est très difficile. tout a été dit tout a été dit. avant et pendant moo doon xool programme candidat yëpp ak ñëpp ak parti politique yi. da nga naan sax ay plagiat. parce que kii wax lii tey que non que diagnostic bi moo baax. parce que ñëpp xam nañ ne lii mooy problème bi. là voilà ça fait mal ñu proposer ay solution maintenant lu mu manqué mooy volonté politique. ku ñëw fan nga ciy yem. c'est am na ñoo xam ne lii daf leen ñor dañ ciy dem ba sori ci am ñoo xam ne lii ñoru leen fii lañ ciy yem et cetera. parce que da ngay ñëw bu boo ci jotee nag la ngay xalaat mooy. naka laa ciy hmm. il faudrait parfois ngay voilà <laughs> donc. Euh, voilà y a des goûts d'inachevés. gars yi du ñu dem jusqu'au bout. et j'espère que fermeté bi mu am nii. dina ko continuer ah oui bien sûr les les les les les pressions sociales comme on les appelle tu mais ci corruption bi aussi bëgg naa ci ñëw parce que il y a la la petite corruption et la grande corruption petite corruption bi mooy ci biro yi boo demee ci biro yi boo joxewul benn billet euh, sa état civil bi duñ la ko jox ah dañ koy dañ lay dawloo tey suba tey suba voilà yow yaa war a comprendre que ne euh, anecdote rek mm-hmm. aéroport bi may ñëw nii euh, waa ji dafa jël suma passeport dem ci portique bi di ma ko <laughs> pour mu gaaw mu ngi doon tester portique bi mm-hmm. mu pare pour moom loolu service en plus la parce que à la place je devais faire la queue tu mu ne ma léegi ah sëñ bi bàyyi fi ndogu ma ne ko attention loolu amatul de changement am na parce que les nouvelles autorités dañ koy bañ. mu disparaître ndànk tu vois parce que il faut ñu bañ. bañ corrompre nit yi. ça c'est la petite corruption moo am aussi ci ci suñu mbokk yi taxaw ci tali bi euh, takk der yi. man lu may préconiser mooy des usagers euh, mystères mooy koo xam ne da koy jël mu dawal benn car rapide bu xënt mu romb policier bi. non moom laa wax ñu def ko jox ko benn jox ko benn billet boo joxee benn billet billet bi dañ koy noter wala ñu foto ñu foto foto ko su ko policier bi laajee mu jox ko ko su ko joxee am na beneen police buy jaar ci ginnaaw ñëw fuye ko jël ko ni ko billet bi ñoo ko joxoon kii loolu boo ko defee benn yoon léegi day da ngay dox seen seen xel ñoom ku ñu gisati nga yore oto bu xënd wala nga def infraction dañuy foog na ci ñooñu nga bokk donc day nekk une autorégulation beneen bi nag la grande corruption nag mooy les à col blanc voilà marché yi yi mais ak ñun dul livré marché boo xam ne kenn du ko livré nga signe ko ñu décaissé ko mais kenn livré wu ko ci vois loolu tamit war nañ ci jóg voilà euh, euh, ñu wax mm-hmm. Euh, dernier tour de table bi Dramé yow laa koy njëkk a jox mooy euh, wax ci wàllum gouvernement bi gouvernement bi benn gis-gis nga ci am certainement tey moom defal leen euh, ministre des affaires étrangères et secrétaire d'État chargé de la diaspora and so and so wala. bon c'est difficile franchement parce que awma accès ci information mais ce qui est bon noo leen wala yow Dramé yow man ni ma ko gisee personnellement man vraiment ce que je peux dire mooy diaspora bi ma jógee ak ñu bëri ñi nga xam mais ñoom laay représenté bi ñuy dugg ci combat bi du ay affaire poste moo leen yëkkati waaw maintenant quand même il des gens yoo xam ne ils ont des compétences ils faire la différence bu ñu leen confier responsabilité mais loolu c'est au président parce que boobaa tamit du jox diaspora bi non non c'est juste un voilà qui de l'autre côté voilà de l'Atlantique exactement te loolu président Ousmane Sonko insisté na ci bon c'est vrai que c'est les derniers discours moom la nit ñi retenir mhm. mais ñun ñi yàgg Pastef mhm. nga xam ne yàgg nañ ko déglu il l'a toujours dit mhm. képp koo xam ne da nga ñëw ci combat bi parce que dafa am da nga ko jël genre genre return on investment maanaam damay investir pour après ma ñëw capter affaire yi nga toog fi nga nekk donc diaspora bi loolu la diaspora bi am na compétence des gens qui ont fait la différence là où ils sont mais demandé wuñu dara imposé wuñu dara dugguñu ci combat bi pour pour dara waaye ku leen woo ñu am ay compétences yoo xam ne ils pensent que ça peut faire la différence ils sont prêts à à à à servir pour le maintenant pour ce qui est des lenteurs observées euh, dëgg naa hypothèse yu bëri. mais man li ma gën a gëm mooy Pastef il faut que l'on reconnaisse parti la boo xam ne li ñuy wax suñu value proposition ñun lu ñuy distinguer mooy éthique bi donc il est important quand on prend des décisions importantes ñu mën a jël temps. ñu xool aspect boobu. donc enquête moralité bi moom laa yaakaar ne moom mooy raison bi tax mu am euh, euh, euh, ces petits retards la mais am naa yaakaar ne balaa ñuy génn weekend bi xanaa dinañ gis liste bi. et pour les lanceurs d'alerte ñu ci bëri ñu woon ci dans la diaspora. Mhm. woon ñibbi si parce dañ leen wax seen mu ngi boo ñëwee ñu def la ci mais je pense que loolu moom c'est c'est c'est c'est un souvenir du man mii ci sama bopp bi ma ñëwoon été nii passé. la moitié de mes vacances Gambie laa leen passé parce que dafa amoon ay rumeur dama jot appel ñu ne ma gars yaa ngi lay wër dama bëggoon toog sax quoi mais après sama soxna moo insisté avec les enfants là ñu ne nañu génn dem quoi donc euh, je peux ko que potentiellement je suis je suis sur cette mais dafa dafa traumatisé man boobu laa xam am loolu yàgg naa dëgg nit ñi di ko wax mais bu la dalee nga xam ne vraiment Sénégal changé boo demee ba yow sa propre dëkk tu te dis que je n'ai plus la liberté d'aller dans kooku bu la dalee da nga naan ci ngay xam ne vraiment changement bi mooy dëgg ce n'est plus médiatisé dama ko dund loolu Sénégal demoon na ba toll foofu hmm. donc looloo tax ci changement bi ak ni mu amee vraiment je me dis que qu'on se réjouisse et que les Sénégalais que la chose la plus la plus précieuse qu'ils ont eue mooy am nekk di dund dans un pays boo xam ne am nañ liberté d'aller et venir d'accord waaw euh, euh, euh, monsieur le maire temps bi xoj nañu léegi gouvernement bi ñi nga xamante ni ñu ngi koy xaar yow ban gis-gis nga ci ban yaakaar nga ci am. waaw xam nga noo ko gisee daal structure bi. waaw vingt cinq vingt six ministres xanaa du ñuy trente trente jëm kaw moom du ko jox du ñu xam nga ñoom lu ñu yaakaar ni yeggoon nañ ba ci ay quarante deux ministres. ba quarante six sax. quarante six waaw. non li ma li ma yaakaar mooy rek ñoom am nañu projet am programme bon ni ñu koy doxalee ñoom ñoo xam. yow tamit yaakaar sa gis moo ci moo xam nga man ci gouvernement li ma ciy xaar ñu ni ma kii mooy ministre de l'artisanat kii mooy ministre de l'industrie ma régleel ko 5000 à 10 000 emplois <laughs> moom emploi la bëgg a créer dama wax ni kii mooy ministre de l'artisanat mu ñëw ma defar sama cluster industriel ci peau et cuir defar ay dàll créer ko emploi sur toute la chaîne de valeur parce que quand booy defar dàll ci éleveur bi ngay jóge ba ci kiy jaay ba à l'exportation. yow daal deri bu mu génne Sénégal loolu loolu. boobu boobu ministère de de l'élevage mu tere deri ministère de l'industrie mu gunge ma dans le Cayor on a un programme qui s'appelle la zone économique industrielle spéciale du Cayor où il faudrait que pôle industriel yooyu ñu ban ko définir nii rek par région pour euh, il faut le définir par produit et par zone. et nous nous sommes preneurs d'une zone industrielle où nous aurons le cluster industriel des poses et cuirs. et nous aurons l'artisanat et nous créerons de la valeur et de la richesse gouvernement bi daal muy quarante ak cinquante il faut rationaliser les ressources on ne peut pas faire un gouvernement pour satisfaire les gens donc il faut mais loolu dans dans dans dans l'organigramme il faut et, eh, évidemment que que ça soit structuré ñu bañ a jaxase li bokkul il faut ñu boole li mën a bokk mais aussi qu'il y ait un leadership avéré pour le faire mais li ma ci gën a xaar daal mooy ñu gaaw tout ni ma kii moo yor artisanat kii moo industrie ma nga jëm ngay mexe Ibrahima boo dee nga xool ma ko gaay Maguette Wane moom moom problème ngaay rek moo ko intéressé. non il est il est pratique quand même. c'est c'est, c'est, c'est vrai que euh, gouvernement. le futur gouvernement. mais gars yi moom il bi jaay bi il a ci loolu tamit. Ah. xam nga zone industrielle la war a doon. affaire yi non woon ba xam nga lu tax ah gouvernement bi Abdoulaye Wade teg na fa base su créer euh, un centre un village artisanal. maintenant nous l'appelons un village artisanal d'art ñu def fondation bàyyi ko noonu plus de vingt ans. mais pour nga mën a je ñoo ngi ci maa ngi investir aujourd'hui wax naa la li fa am lépp on a une usine on est en train de refaire le village artisan mais un village artisanal digne de Ngaye avec 1004 unités de production il faut état jàpp ci donc loolu moo tax ma ni li ma yàkkamti du question damay fàtte ñi des mais bu ku nekk defaree territoire am collectivité territoire am mais Sénégal defar su ma créé 10 000 emplois 550 58 collectivités territoriales ku nekk def 10 000 emplois léegi ñu mat 1 et seen 5 bi dans 3 ans ñu ñu soxla soxla ñëw Dakar. oui. waaye moom c' est non ñii euh, moi bon euh, man euh, suma attente est que qu'on ait euh, un gouvernement bien structuré. c'est-à-dire que il faut vraiment recentrer le recentrer recentrer ñu am de grands ministères. avec des compétences vraiment su du Sénégalais lu ñu soxla mooy nga am euh, ministère bi nga xam ne yaatu na euh, méngoo na ak li nga bëgg def nga am ki ko mën les gens veulent un gouvernement bi nga xam ne mën na euh, soigner les les les besoins des Sénégalais. Hmm. c'est ça qu'on cherche. donc non mais c'est pas impossible. njëkk a dajeeg acteur touristique yi xam lu ñu lay ñun suñu secteur chacun est son patron patron bopp loolu lañ lay teel a xamal non cest dire que un état c'est pas c'est pas c'est une mission la mission service public mais lu gouvernement dafa war a am des objectifs qui correspondent aux missions soxla woo quarante soxla quarante ministres cinquante ministres tu as besoin d'un grand ministère du développement rural ou de l'agriculture qui coiffe toutes les activités liées à l'agriculture. Bien sûr. Bah, industrie, c'est la même chose, la pêche, la même chose. Donc autour de 15, 20 ministres, de gros ministère avec des compétences là. C'est-à-dire qu'un ministre, c'est un homme compétent dans un domaine. kooku moo mën a copter des compétences autour de lui mën a mën a constituer qui a un leadership c'est du management Donc c'est pas politicien. Je pense que euh, le président et son premier ministre quand même doivent mettre fin au clientélisme. D'accord. Que, que ça, on attend un, message fort en direction des jeunes. Parce que jeunes yi gëmatuñu les politiques politiciennes. lu ñu gëm c'est la compétence c'est le patriotisme c'est des valeurs sûres. Les gens ont besoin d'accompagner jomai dans, dans cette direction-là. Maintenant, l'autre gros gros gros problème en dehors euh, de de la taille des, des compétences, c'est que il faut pas disperser Ousmane Sonko. S'il si, se disperse, il va se perdre. Les errements, le tâtonnement, l'imprécis, le, le, le, le doute, c'est pas bon pour un nouveau régime. C'est comme euh, la, la, la, banque. Ça tue une valeur sûre. Tu, tu mets tes pieds là, dans six mois, je marche. Okay. mais euh, mu bañ a am daal. Euh, tatonement tâtonnement baaxul ci stabilité réew mi baaxul ci moral nit ñi baaxuñu baaxul fenn. donc il faut être sûr même s'ils prennent jusqu'au lundi un mois pour former le gouvernement. moi j'ai pas de problème il faut pas qu'ils se précipitent. Mmh. jaru ko nga nga def euh, on l'a vu muy Macky Sall muy président Wade. jël ministre le lendemain le président se rend que bon on a menti sur le CV on a menti sur la moralité le président était obligé bah, de, limoger et de ça ministre en plus ça ça ne doit pas arriver ça ça ne doit au Sénégal la dame la dame donc je pense que il faut que ñoom ñu xam ne quand même bon euh, les attendent beaucoup de du président et du premier ministre que nañu xam ne que que c'est une responsabilité qu'ils ont mais bu ñu fooyee bu ñu fooyee seen nguur que nañu xam fu ñu jëm euh, xam fu ñu teg seen tànk am responsabilité je crois que pour moi vraiment honnêtement bon c'est vrai que c'est personnel mais je ne doute pas des qualités humaines du président qu'on a je, je, je n'en doute pas d'accord que il faut maintenant qu'il travaille euh, calmement, dans la sérénité. Je, je crois qu'il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. Réforme yombul, euh, réforme yombul. Ouais. Il y aura le de bouclier. Non, il y en aura. Des euh, trop, trop, trop, mais voilà, en deux mots. Oui, en fait, sur le gouvernement, man lu ma ciy xaar mooy un gouvernement opérationnel tout de suite parce que attente bi <laughs> c'est ça. absolument tu et que mooy ñoo xam ne. Euh, dañu am compétence moom lundi passation service. ah oui c'est comme ça dañu am compétence bi parce que pas forcément compétence politique boo mënee boole ñaari tant mieux mais ñu privilégier euh, surtout waaw waaw compétence yi quoi mm. ah et puis leneen li aussi mooy euh, regrouper ministères yi mm-hmm. man dama doon proposer par exemple euh, un grand ministère de l'enseignement supérieur de l'éducation nationale de la formation professionnelle mm-hmm. de la jeunesse ah et de l'insertion professionnelle. mais si si jeunesse ak euh, fii jeunesse ak sport. non man fii laa koy dugal xam nga tax parce que li ma wax yooyu yëpp pour jeunes yi la kan mooy jàng du xale mooy jàng lu ci ëpp. Mhm. ah xale mooy wuti liggéey lu ci ëpp moom la ñuy insérer ah donc ki nga xam ne moom mooy xalaat xale yi lu ñuy jàng ak nu ñu leen di tàggatee ak instruction civique bi nga ci tudd yooyu yëpp ki koy xalaat mooy xalaat après fan lañ leen di dugal mais si c'est décorrélé euh, ki nga xam ne mooy xalaat emploi bi. moom moo nekk en contact avec les entreprises xam besoin entreprises yi mais y a une césure avec ki nga xam ne moo yore jàng bi donc bu ñu jàngalee ba pare léegi ki yore entreprise ne la ñun soxlawuñu lii lu ñuy def il faut mu am cohérence léegi nag buy am ay direction yu mag wala mu am secrétaire d'État mu am ko mais même réunion yi ñoom ñoo fay toog di wax ne finalité bi mooy lan mooy ñun dañu bëgg former ay nit sur le numérique pourquoi numérique baax parce que dafa am emploi sédentaire yoo xam ne Euh, fii lay nekk am emploi yoo xam ne nomade la kenn mën na am compétence ci numérique toog fii di liggéey comme tey ni ma defee sama cours fële mën naa toog fii di jàngale euh, France dëkk fii am salaire France bien sûr tu vois donc suñu formé suñuy ingénieur fii liñ ci soxla ñu jël ko ni nga xam ne mënuñu am liggéey euh, ñu wut liggéey fële moo gën ñoom ñuy dem di wuti ay indiens yoo xam ne dégg ñu français mën nañu jël ay sénégalais yoo xam ne dégg nañu français tey ingénieur lañu bi yore seen ordinateur liggéey bu ñu paree dem seet seen njaboot d'accord d' kon noonu yow tam nga gisee euh, gouvernement bi di ñëw bon euh, peut-être jox euh, Dramé. Hmm. dernier mot peut ah, ñu rendre l'antenne. waaw euh, vraiment di di leen remercier parce que je l'avais pas fait <laughs> au début donc di euh, remercier ñi nga xam ne ñoo jël seen temps bàyyi la ñuy def dañu seetaan mais di remercier surtout sama coordination de Pastef États-Unis di leen wax ne vraiment on est très content que nous ait envoyé ñëw fekkee investiture bi euh, ñu ngi dund yaakaar et que la diaspora est toujours prête et comme je l'ai je ñun lu ñu xamee ci politique Sénégal mooy bu soxla yi soxlaa xaalis ñu woo ñu ñu def fundraiser comme le doyen l'a dit ñu joxe ko. voilà mais li ñu bëgg wax ne mooy xaalis moo gën a tuuti li ñu mën a joxe. lépp lu dëkk bi soxla suñu laajte on est prêt à à à mettre les moyens. allah merci. États-Unis eh, enseignant chercheur en Sciences Po et en sciences de gestion président du parti RPD def ko eh, eh, monsieur le maire. waaw nga xam mbaat da ngay créer parti ni ngay waxee nii daf man da bëgg non non non monsieur le maire day day liggéey mouvement xew mouvement ngaay dëgg wala ngaay d'abord non non mouvement euh, liggéey Sénégal rek ngaay fas c'est c'est c'est important mais ñoo ngi leen di sant mm. di remercier aussi sama collègue yi ma nekkal ci plateau yi Et ça a été très sympathique. Et nous retrouvons comme de la diaspora, parce que j'ai longtemps été de la diaspora, de la santé yow itam. di sant doyen parce que et di sant téléspectateurs yi ak euh, directeur général aussi bu cette TV di di di parce que cette TV quand même au cours des de de l'élection présidentielle ils ont servi des des plateaux de de de bonne facture. donc euh, merci beaucoup et. à bientôt et du courage au, au chef de l'État et le temps de faire euh, du faut donner du temps au, au temps, le président Félix Houphouët. Donner au, au temps. temps. Est-ce que faut, le, le, parce que comme il dit, mieux vaut faire un gouvernement qui peut prendre un de temps que de faire un gouvernement qu'on change 48 heures après. après. C'est ça que j'ai dit, donner au temps, que vendredi ou samedi ou dimanche bon. et surtout les réformes aussi ki koy jëmbat du moom moo koy du mooy fekkee fu muy meññ. non moom kañ hmm? dina dina dina métti. bu dañuy changer système éducatif bi dugal l'anglais ah. dès l'école primaire. def lii def lii def lii. ah j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé le fait que les langues nationales. je pense que il est temps dëkk yi développé yëpp. danoo def langue nationale. boo demee Tanzanie Kenya dëkk yoo xam ne vraiment. mais fi moom mais fii il faut. semaine mais <laughs> il faut ñu def choix il faut ñu def choix. merci. donc moi, moi ce que je ce que je voulais dire juste sur les réformes là cest que Sénégal il faut faire très attention réformant ça ne donne pas le résultat immédiat. Ah il faut vraiment que les surtout dans dans le domaine de l'État c'est sur des années. Et tous les gens, en tout cas les experts en, en management ou en gestion, ils savent que les résultats, c'est sur 5 ans, 10 ans. Exact. ah euh, il faut. oui non mais il faut oui mais il faut apprendre il faut apprendre un état un état c'est pas ça c'est il faut dire ça il faut dire ça clairement qu'ils qu'ils n'attendent pas de de Diomaye et de Sonko l'impossible il faut il faut que le le le, le PASTEF et les alliés comprennent qu'une réforme, par exemple, de la justice, bah, Senghor, il a mi combien de temps pour construire le, le régime présidentiel Il a mis 20 ans. Bah, c'est pas en, une semaine que Diomaye va... Quand même, c'est sur 20 ans. Peut-être on est parti sur une génération de 25 ans. Euh, je crois que baax na quand même que nit ñi waxante dëgg bon bañ a naxante ñi nga xam ne am nga yéene bu baax mais sa yéene bi mun mënul àgg en une journée wala en un an c'est sur cinq ans c'est la même chose non non non Birame Birame non non les prémices non les prémices les prémices première c'est de dire que tu as une volonté de changer de régime politique maintenant deuxième objectif c'est que comme ni ñu waxee c'est le pouvoir exécutif président bi lan moo nar a nekk la fonction du président la République comment l'encadrer tous les présidents qu'on a eu c'est des rois mais comment l'encadrer moom Diomaye comment encadrer le premier ministre Ousmane Sonko comment cette faiblesse moo nekkoon ci seen union kenn du laal lu leen jege. mais bien sûr comment comment comment comment comment gérer la future assemblée la future assemblée nationale. donc y a y a c'est pas par une baguette magique. moo rek ma tàggoo temps bi jeex waa tàggoo waaw man it maa ngi tàggu ñëpp di la di la gërëm. ci invitation bi ak euh, ñi ma nekkal nii. je pense que débat bi c'était de très grande qualité. Euh, di nuyu aussi sama waa parti ñoom Fala Ndiaye Amy Sine ñoom Kankou Koulibaly ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. voilà yaakaar que ne yaakaar bi ñu am ci jomaay incha allah yàlla du tas suñu allah incha allah kon euh, di ngeen ko seetaanaat certainement vers minuit y aura y aura rediffusion de toute façon. Maguette maire de Ngaye docteur Ibrahima Dramé coordonnateur Pastef États-Unis Doudou Sidibé enseignant chercheur borom RPD def ko. doyen Mamadou Sy Albert a Camara ñoo fi nekk ñoo fi jaaroon doyen kon ba altine euh, incha allah bon week-end bon week-end euh, bon week-end à tout le monde à tout le monde bon week-end à tout di leen gërëm di leen sant ci taamu gi ngeen taamu seen télévision 7TV jërë ngeen jëf